ñi ñëpp mën na may na marqué del ñëw di ma jàppale si marquage bi ah lan la ñaari ne damay na mën marqué du wax naa ko Ousmane sànq ba tey man tamit fay na ñaari nit laay marqué damaa sonn wala Ousmane usmaan hey usmaan Markel Ousmane Ousmane Markel et eh, Ousmane bul bàyyi xanaa da nga crampe non adducteur yi. da ngaa dëgër bopp bàyyi ndey faat ngay doo ba gisu ko dara. ay. jeex na. deux deux heures la ñu leen noq. booy yemal garaawul. waaye xanaa ñu fi xaañ. yow ay daa jër nga siy wax deux heures la ñu noq. xamante bi bëgg a dee eh. ba arbitre benn faute benn faute benn faute mënuma ko may amal sama complexe. demal tuuti amul solo gis naa sànq li ñu may gaañ ñanam amul solo. demal tuuti ba la bokk. Eh, eh. amul solo bàyyi ñu fa bal loolu nga ma mais frère waaw yow rek laa xamul sa gàlle foo dëkkee wala boo tourné su gauche am na benn mayga bu nekk foofu noonu ngay tourné rek jàkkaaru moom